gars yi jërëjëf ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm bu baax maa ngi doore sama kàddu di leen ñaan rek waa di doore sama kàddu ci gërëm ak félicité waa m 2 jiital ci gërëm googu ki nga xam ne mooy cordinateur m di docteur Cheikh Tidiane nga xam ne mi ngi def liggéey bu ama am solo waaye toutes les composantes du M2D parce que ngeen may ma rek li may wax dafa am solo dama li may wax dafa am solo ngeen may ma kon léegi waxatuma on peut la parole au prochain ñooñu ñëpp ci opposition Sénégal la ñu bokk tey kenn ku nekk ak ni ngay doxalee sa opposition ñu bëgg nag yéen ñi nga xam ne yéenay le peuple sénégalais dañu bëgg ngeen jàppale opposition bi ci li ñuy liggéey pour bennal opposition boobu ndax tey soo jëlee lu mel ni m li ëpp ci organisation yi ci nekk duñu ay parti politique su ma limee juum waaye ay FRAPP ay MD ay euh, ay euh, doy na ak keneen ak keneen duñu ay parti politique mu am ay parti politique à côté li ñu war a def nag ba loolu lépp ñu taxañ ko mu doon benn doole boo xam ne ñi ci nekk ñëpp dinañ gis seen bopp ci ñuy liggéey mooy nañu fexe ba jiital esprit ni benn lañu ci opposition bi te benn objectif lañu am mooy réew mi nañu fexe ba li fi nekk te baaxul ñu jële ko fi waaye nañ ko teg définitivement sur les rails moo tax yéen je vous rends hommage vous la jeunesse sénégalaise yéen jeunesse sénégalaise je vous rends hommage war a xam yéenay ñan yéen yéenay askanu Sénégal yéenay plus de 60 pour cent de la population yéen yéen a toll ci ndaw foo xam ne ku bëgg a defar réew yéen la war a wéeru kon su ngeen demee ba jël conscience te li leer ba leer mooy tey la jeunesse a une conscience politique parce que ci passé bi dañ doon wax ni les jeunes n'ont pas de conscience politique les jeunes ñoo dul bindu ci liste électorale yi les jeunes ñoo dul voté ji tey est-ce que jeunesse boobu moo fi nekk vous avez pris conscience de votre responsabilité historique que mënatu leen toog naan ñëpp yem jàpp seen ñàmbur les mêmes nekk fi depuis Senghor ba léegi même problème yi ñu koy jànkonteel waaye dama leen bëgg a wax leen lu am solo préparez-vous au combat waa jii ñu jàmmar lool waa ji yi nga xam ne moom lañu jàkkaarloo ku yaakaar ni wax ju neex ak taal climatiseur toog sa salon moo ko fi jëlee ndax nga sa bopp bëggoon naa leen wax beneen discours bu wuuteeg bi waaye on est obligé d'être réaliste ab président de la république bu demee bay recruter ay nervi kooku narul jàmm ci réew mi kon waajal leen seen bopp chaque jour chaque heure chaque minute te préparez bu ocomba te bu leen déglu nag ñiy toog naa leen way yéen a yee fitna jàmm nangam nangam parce que Sénégal mooy réew moo xam ne ki yor nguur gi lu mu def rek baax na ñëpp gis nañu mu jël ay samba booy di dal ci kaw askan wi est-ce que loolu yéen di ngeen ko nangu préparez-vous ocomba parce que ni ngi leen di gis yépp nag benn poignée la li mu yor ci ay nerf bi yépp weesuwul cent cinquante wala deux cent vous êtes des millions loolu war leen jaaxal donc préparez-vous ocomba parce que Macky Sall ci nii wala nele dina abal réew mi jox nañ ko mu wane ni mënut tey lan la lan la nit doon jàmbat 2011 te doublé wul wala triplé wul wala sax multiplié ñu ko par 10 tey en 2021 nañ ma citer benn exemple rek ba pare nga ne doo fi jóge te ku wax nga dal ci kawam est-ce que di ngeen ko nangu. kon ñun li ñuy xaar ci yéen li ñuy xaar ci yéen mooy ngeen préparer parce que am réew li ko war a defar dafa laaj sacrifice na ngeen préparer ci sacrifice yooyu waaye sacrifice yooyu du am njëriñ lu dul nag. ma delloo ko ci sama mbokk homme politique yi askan wi dafa doyal ci xeex ba jëlee fi dara teg fi leneen les mêmes méthodes reprendre les mêmes hommes reviennent ñu defaat les mêmes chose ñu war a reprendre le combat dinañu xeex ba jëlee fi Macky Sall mais kenn dootul nangu cette jeunesse ne l'acceptera pas nit ñëw toog indi sa njaboot indi sa famille jaay suñu ressource naturel jaay suñu géej surfacturer les marché publics Euh, euh, instrumentaliser la justice ku wax nga dal ci kawam di di pourchasser les les opposants di tëj nit ñi est-ce di ngeen ko nangu dama ne Ousmane Sonko bu dee yàlla dafa war a def mu nekk président amatul état de grace amatul ñu naan nañ ko may day liggéey ku ngeen gunge ba mu nekk président it son pied votre pied bu leen ko may une minute muy def lu ko neex parce que réew lu koy defar du benn nit je vous remercie